mbaa boog jëmm ja nga xam ne moom la ragaloon jëmm jëmm nga ne léegi waaye la ca nekkoon ba tax ñu koy ragal loola la yàlla rocci bu set wocc mel ni ni mu defaloon Ibrahim sawara wa ba Namruud taalee sawara wa ba nga xamee ne picc yi sax buñ naawee tiim ko dañ cay daanu bañ ci dugalee Ibrahim yàlla fayut sawara wa benn ci boppam la jox ndigal ne ko yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim sawara wi seddal sedd bu ci ibrahim sedd boo xam ne du ko gaañ te noona la sawara wa ibrahim wala na yàlla defaloon ga muusa xam nga muusa ba ko firaw nay topp ay gaayam ne ko ah daañu jot de mu ne déedéet suñu borom la àndal te du wocc suñu borom da ko xaral géej gi mu def fukki yoon ak yaar ni fam yi ànd ak moom toll ñeen ñu ne am seeni yoon yu jéggi ba jàll mucc ca géej ga ngir xam ne ñëw moog ay gaayam doon jéem aw ci yoon yooyee naka ñëpp dugg ci waa Firxaw na kenn desut géej gi defaat na defoon ñoom ñëpp ñu lapp wa min kalaamihi bokk na ci waxi sëriñ bi radiyallahu anhu maa loo xam ne lafzuhu baatam mooy lamma qaala ba waxee moom yàlla taxalaa kawe na ne laa ilaha illa amul benn bu may mën yàlla taxayyaroo gëlëm nañu kay fa yaabudoonahoo naka lañ koy jaamoo wala yaarifoona te duñu xam xaqiqatahoo dëgg-dëggam su ma xaal topp mu wax lahum ñeel leen ne leen muhammadun rasulullah ay li mu ci namm yuriikum dana wan ak tariixa yoon wa wa kayfa taabudoonahoo ak naka ngeen koy jaamoo fa ah daquuhu te ñu peeg ko mooy ñu wër ko wa qaala mu wax lahoo ñel ko ne ko yaa ayyuha rasuulu yow yonante bi ballix jotlil wa ballaxate mu jot li ne annal waajiba naka aji war wal man dooba ak lañu ñu sopp wal mubaaxa ak lañu ñu daganal as saaliha lay aji yiw al musliha lay aji defar tariqul jannati mooy yoonu ajjana wal xaraamu lu araam nag wal makruuhu ak lu ñu sib wal mubaahu ak lu ñu daganal al faasidu lay aji yàqu al mufsidu lay aji yàqe tariqatu naari mooy yoonu sawara su ma xaal tooj mu wax lahum ñel leen wa ma aataakum lu mu leen dikkee ar rasul yonante bi fa xuduuhu jàpp leen ko wa ma nahaakum lu mu leen tere an walis ko fantaxoo na ngeen terewu mooy bàyyi leen ko sëñ bi nee woon bas boroom ne laa ilaha illallahu man rek maa yàlla mbindeef yi dañoo gëlëm xamuñu daga mooy buur bu sell bi ñu war koy jaamu naka lañ koy jaamoo ndax koo xamut doo ko mën jaamu yàlla teg ca muhammadun rasulullah muhammad mii day mooy sama ndaw maanaam muhammad mii moo leen di wax man may kan ak laa bëgg ba ngeen mën koo def te mooy nu ngeen may jaamoo muhammad mii moo leen koy wan mel ni jaam ñi dañoo ñëw ne dann yonante bi yàlla ne ko yonante bi jottalil xamalal sama jaam yi laa bëgg ak laa bañ yonent bi jot li te sëñ bi ne lim jot lépp kat mën nga koo takk ci ñaari tomb yii tomb bu njëkk bi mooy yonent bi nee na la yàlla digle muy lu war ak la nga xam ne da koo sopp ne waralu ko ak la mu daganal te nga xam ne ca ngay jàppandiku ba mën a def waajib ak mandóob loolu day mooy yoonu ajjana maanaam sax ci la yàlla bëgg lenn la da ko waral ci yow sañoo koo bañ lenn la da koo sopp bëgg nga taamu ngërëmam ba di ca góorlu nga boole ca nag fexe ba am lu lew loo xam ne da nga koy dimbandikoo ci def lee yàlla bëgg yett yi day boko bolé moy yoonu àjjana bontoom bangok ba ci des nak moy lu aram ak lo xamné ne yàlla lu ko way da ko sip tawbugo ak amul dagan ba nopi yak ko ci lu aram ak lu ñu sib day moy yoonu sawara yoonu sawara moy top lu aram lu ñu sib ak boo amee dagan yàq ko ci lu araam ak lu ñu sib ci gàttal nag suñu boroom wax mboolem jaam ñu ne leen wa ma aataakumu rasuulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu yonente baa ngoog mooy sama ndaw lu mu ne def leen def leen lu mu ne bàyyi leen bàyyi leen lu mu ne jàpp leen jàpp leen lu mu ne bu leen laal bu leen laal wa minhu fa in xalimta boo xamee ne ànd lahu naka ñeel na ko alqudrata kàttan wa amaraka te mu digal la wa waxadaka te mu dig la wa nahaaka te mu tere la wa aw xadaka te mu tëkku la wa nahaaka mooy te mu tere la wa aw xadaka te mu tëkku la wa kunta te nga nekk muuqinan di aji wóolu ni ànd lahu naka moom xaadirun aji attan la xalaa kulli shay'in ci bépp mbir kon day tam tasil daga top amra ho digalam wa tajitani te nga moytu ho ak tere fa in to bo xamé nak ne and ho nak ñal nako al iradata namel ga fala tuka bidhu kon bul jema jankonté mom لانه غير نك موم فحال اب دفا كون لا لما نيل لاغا خامني يريد انا كو نام فمتى خطر سايو توقي في قلبك سي خول الحسنات يوي فضي دال ديوي الي حاجم تي نيوم وان قط وان خطر لم توقنا في قلبك سي خول السيئات نياوتي فيا فتوب توبل لانه غير نك يالا عليم بو اجي خام وهو تي موم asbahakum an nawiyun aynama kuntum fu man di nekk wa hayyun ti aji dund la qabla hayati kulli hayyin ci njëkk dunduk jépp aji dund wa inda hayati kulli hayyin ak fa dunduk jépp aji dund wa ba'da hayati kulli hayyin ak gannaaw dunduk jépp aji dund wa huwa te moom hayyin aji dund la laa yamootu dog di faatu wa huwa te moom as-samihu mooy aji dégg ja al basir ja aji gis sëñ bi nee na woon bu la wóori ne sa boroom day lépp la man lépp la sañ mu digal la ne la nangam boo ko defee ma defal la nangam nangam nag moom bul ko def boo ko defee danaa la def nangam mu wóor la ne nag yàlla mi la wax loolu lépp la man tëriwul dara ñu la lii boo ko te xam ko te wolu ko da nga taxaw temm ci def lam la digal ndax ka jot ca lamu la dig taxaw temm it ci moytu lamu téré ndax nga mucc ca lamu lay tekko su la itam ne yalla day da am coobareem jo xamni mom ci lay jëfé lu mu namm amul kenn ku dox diggantee moom naa ko du am boo ko xamee te gëm ko te wóolu ko doo jéem a jànkoonteeg moom lu mu def rek na la neex ndax moom lu ko neex rek mu def saa yu lu baax ne toq ci sam xel rek dalal di gaaw jëm ci lu baax loolee bu safaan ba toqee ci sam xel nag moom fi saa fi saasa dalal di tuub ndax yàlla jéggal la ndax yàlla kat lépp la xam te mi ngi ànd ak ku mu sàkk ku ne ba sax moo la gën a jege sa duumu xol kon nag dee seet di toq ci sam xel la toq ci sa xol bu dee aw yiw gaawal def bu dee safaan ba gaawal tuub sun borom nak neena moy ki nga xamne mom ba fi dara nekutoon mi ngi fi nekkoon di dund gannaaw bam sàkkee la ko soob ba tey rek mi ngi ànd ak di dund gannaaw bu la mu sàkkoon lépp itam moom rek moo fiy des di dund ndax moom day koo xam ne ba dee mukk mukk mukk mooy dégg lépp lu ñuy dégg di gis lépp lu ñuy gis wa min kalaamihi aydan maa la nga xam ne amaraka digal na la allahu yàlla bi ci ci moom amaamaka nekk na ci sa kanam wa maa la nga xam ne nahaaka tere na la an walis ko waraaka nekk na ci sa gannaaw wama la nga xam ne tuhibbu da nga ko sopp wa yasurruka te mu lay bégloo wa yanfauka te mu lay jariñ walla yadurruka te du la lor wala yaxurruka te du la wor yaminaka nekk na ci sa ndeyjoor wama la nga xam ne taxaafu danga ko ragal wa takrahu te nga koy sib wa yasuu te mu lay naqaral wa yadurru te muy lor wa yaxurru te muy wor chimaalaka nekk na ci sa càmbooñ fa in arat boo bëggee jalbamaa ñoddi la nga xam ne tuhibbu da nga ko sopp fam tasil toppal al awaamira ndigal ya wa in arat boo bëggee daf xamaa jiñ la nga xam ne taxaafu da ko ragal fajtanib moytul al tere ya iyaaka yow yàlla rekk naabudu la ñuy jaamu wa iyaaka te yow yàlla rek nastaayinu sàkkoo dimbandikoo sëñ bi nee na woon yow taalibe bi mën ngaa misaale sa bopp jëmm ci taxaw nii li nga xam ne moom la la sa boroom digal nekk nii ci sa kanam lii mu la tere féetale fii ci sa gannaaw li nga xam ne moom nga bëgg te moo lay bégloo te moo lay jariñ te du la lor te du la wor mi ci sa ndeyjoor la ragal nag di ko bañ mu lay naqari te dalay da lay lor te it da wor mi ngi nii ci sa càmmooñ mu ne nag soo bëggee am lii nga bëgg jëruta ñoot di mbaa dara dalal di waaxu rekk jëm ci ndigal boo tax taxawee ci ndigal rekk lee nga bëggoon te mu am njariñ daldi ñëw topp ci yow ne la jëru geesu foo jëm rekk ma ànd ak yow ndax man kuy top ndigal rek ma tax jog mom lañu ma bolel nga moytu nak jëm ci leñu téré tere fété won la gannaaw sayo ci lu yalla tere mom lee nga don ragal ak a bañ té mu lay naqari té lay lor té lay wor bolé ca momit day def dan ni lay kat doomu fi bayyi fo jëm yóbbaale ma ndax man kuy xëtt digal rek lañu ma booleel kon nag boo farloo ci sax ci ndigal moom lee ngay ragal dalay wax ne la man day jërumaa geesoo ko xool man jotumaa yow dara fa nga jëm man jëmuma fa man kuy xëtt ndigal moo ma tax a jóg le nga xamne mo am njariñ nga diko sopaka yotu bo boo koy geesu mu ne la ah man jërumaa gesu fo jëm rek ma ande yow ndax man kuy top ndigal rek lañu ma bolel suñ bi daaneele yalla nun yow rek jaamu te it ndimbal ci yow rek lan koy sakku wa mimma sami'tuhu minhu radiyallahu anhu ki doon nettali dane bokk na ci laa dégge ci sëriñ bi fii tafsiri xawlihi taxaala ci muy firi wax yi yàlla ji mu ne wa in taxuddoo ndeem da ngeen a bëgg a wàññi ni'matallaahi xéewalu yàlla laa tux suuha du ngeen ko mën a takk ak a wàññi sëñ bi firi ko ne nafasin gépp noo min anfasika ci say noo fa huwa moom min ni amillaahi bokk na ci xéewali yàlla daldi jàng wa in taxuddoo ni amatallaahi ba mu daanu wa kullu xutwatin bépp jéego min xutuwaatika ci say jéego fa hiya min ni amillaahi bokk na ci xéewali yàlla mu daldi jàng wa in taxuddoo ni amatallaahi ba fa mu yem wa kullu xarakatin gépp yëngatu wa kullu sukoonin ak gépp dal min ni amnillaahi mi ngi bokk ci xéewali yàlla yi daal jàngati wa intaxuddoo ba fa mu yem laa yataxarraku di yëngatu mutaxarrikun jenn aji yëngatu illaa bi taxriikihi ndare ci ak yëngalam wala saakinun du caagéenu jenn aji dal illaa bi taskiinihi ndare ci ak dalalam waxuwa te moom yàlla tabaaraka barkeel na wa taxaala te mu kawe jàll màgg na ba jombanteeg anit taharruki walis yëngutu waxani sukkooni ak walis dal laysa ka mislihi déet di mel ne yàlla shay'un dara walam yekkunte nekkut ahadun kenn ku fa andi ab nawle la hoñeel ko لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا يخفى نبو عليه تموم شيء درأ fil ardi ci suuf wala fi samaay du caagéenu ci asamaan nga am taalibe bu ne lii day ci sëñ bi laa ko dégge woon muy firi li suñu boroom wax ne su ngeen dee jéem a wàññi xéewali yàlla itam du ngeen ko man ne sëñ bi ne noogu doomi aadama noyyi rekk xéewal la ci xéewali yàlla yu màgg yi ci moom naka mu wax loolu daal di jàng wa in ta'uddu ni'matallaahi laa tuhsuuha mu tekkee ne bépp jéego bu doomi aadama soqi rek jéego boobee ci xéewal yàlla yi jàngati wa in ta'uddu ni'matallaahi laa mu tekkee ne yëngatu bu doomi yëngatu ak dal gu mu dal xéewal na ci xéewal yàlla yi daal jàng wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha mu tekki ne amul yëngutul boppam amul luy dalal boppam loo gis mu yëngutu yàllaa ko yëngal loo gis mu dal yàllaa ko dalal yàlla ci boppam nag jombante naag muy yëngutoo ko dal ndax yëngutoo dal mbiri mbindeef mi sosu tàmbalee fenn rekk lay doon ni yàlla waxale boppam rekk ne moom yàlla rekk mooy yàlla kenn mënul ne moom kenn du ab nawleem ku dul moom ak lu dul moom moo la sàkk nga di ab jaamam rekk noona rekk la mu feddalee ko ci لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تكينا يالا نك دار أم بكوتي أسمعنا الشوف دار أم بكوتي لبكوتك أسمعنا اسمان الصوف لنك تي بير اسمان الصوف لب لخم امبلي ومنه ايضا xubbu duniyaa sopp àdduna ra'su kulli xatii'atin mooy bopp bépp ñaawteef mbaa mooy njëlbeenu bépp ñaawteef wa fuhima déggeef na minhu ci loolu ne xubbul aaxirati sopp alaaxira ra'su kulli xabii'atin mooy njëlbeenu bépp dencub yiw fastami na nga déglu tan tafiya kon nga jariñu wa illaa boo deful tan dafiyan kon nga detteelu daanu sëñ bi nee na woon bu ñu nee bëgg àdduna mboolem ñaawteef yi moo ci féete kaw te it ñaawteef wu ne moo koy jur dañ ciy dégg ne bëgg alaaxira moom moo féete kaw ñépp yiw te yiw wu ne moo koy jur mu ne nag del dégg bu baax tey jéem a jariñoo la ngay dégg kon nga daldi di waaye boo ko deful rekk daldi di detteelu daanu wasalaam wa min kalaamihi radiallahu anhu al istinaasu wéttalikoo binnaas ci nit ñi min alaamatil iflaasi mi ngi bokk ci màndargam perte wa mënta ànn sa ko bi rabbi naasi ci buurub nit ñi nafaha kon jariñ rabbun nas burub nit ñi bihi ci mom nas nit ñi wa man ta nas ko wetliko bin nas ci nit ñi hajabahu kon yir ko kon laq ko nas nit ñi an rabbin nas walis burub nit ñi wa in tawajjahat ndem jubluna ko jëm ci yow nas nit ñi wa tawajjahta te nga jublu ante yow maahum ànd ak jëm ci buurub nit ñi nafaxakum kon jëriñ leen rabbun buurub nit ñi bil jannati ci àjjana allati ja nga xam ne waxida digéef na ko almuttaqoona way ragal ñu yàlla wa man tawajjahat ku jublu wa man tawajjahat ilay jëm ci moom annaasu nit ña wa tawajjahate mu jublu huwa moom maahum ànd ak ñoom ilaa nafsihi jëm ci boppam aw ilaa anfusihim wala jëm ci seen bopp dafa xam kon jiñ leen rabbu naas ci buurub nit ñi ila naari jëm ci sawara wa allati wa nga xam ne waquuduhaa mattam ma annaasu mooy nit ña wal xijaaratu ak doj ya wal xiyaadu billahi taala sëñ bi nee na woon nit ñi moom day taxa ñàkk aw yiw fii ci àdduna ak fële ci àllaaxira wétli ko yàlla nag day taxa jariñu ak a jariñe ndax ku ndax ko wétli ko yàlla yàlla jariñ la te jariñ nit ñi ci yow mooy yàlla dalay jariñ jaarale ci yow njariñ mu jàll ci nit ñi ku wétali ko nit ñi moom ne faaw nit ñi nekkum ñag digganteem ak boroomam mu ne it ku nit ñi dëgmal mu ànd ak ñoom dëgmal yàlla yàlla boole ko nit ñi gërëm leen jariñ leen tabal leen aljana ja nga xamne mom la dig ñako ragal mom yalla ku nit ñi deggmal nak bu and ak nit ñi deggmal bopam mbaa mu and ak nit ñi ci la leen neex te neexul yalla yalla da koy mo ko ñam andal duggal sawaraw wo nga xamne na lool ak sawaraw aduna ndax sawraw alaxira mom lay nek ci bir di jëf-jëfe di tak moy doomi adamay yi ak i doj wuti nak lol sawraw aduna wa minhu aydan alhil muqamqam ala qismayn nek na ci ñaari xaj naafixin aji jariñ wa dafihin aji bëmaxe alxilmu xam-xam ba annaafihu bay aji jëriñ yaquudu day wommat alxabda jaam ba ilal jannati jëmi àjjana wal xilmu xam-xam ba addaafihu bay aji bëmëxe yaddafahu day bëmëx alxabda jaam ba ilal naari jëm sawara sëñ bi nee na woon xam-xam ñaari xaaj la xam-xam bu am njëriñ bu yóbbu àjjana ak xam-xam buy lor buy bu wax nit jëme sawara mu ne xam-xam bi am njariñ mooy la nga xam ci lu baax te di ko def ngir yàlla ak la nga xam ca safaan ba te di ko moytu ngir yàlla xam-xam boobu dalay soril sawara womat la yóbbu àjjana xam-xam bu bokkut ak boobu nag mooy ba nga xam ne day bëmaxee jëme sawara aydan wa man araada ku bëgg an najaata mucc min suu in nafsi ci bonu bakkan fal ya fal nay def alxayra aw yiw waf xaloo def leen alxayra aw yiw laallakum ndax lee yéen tuflixoona da ngeen texe mën na it laxal lakum kon yéen ndax yàlla laxal laam li ci ëpp du nekk ndax rekk ak wóolu lay doon wa man araada ku bëgg ak najaatu mucc min idlalil hawa ci wéralu bànneex fal yasluk na soobu sabilallahi yoonu yàlla fastaqim jugal kama umirta nañu la digale wa man araada ku bëgg an najaata mucc min ixwaa'i seytaani ci bewloog seytaane fal yabud na jaamu allaha yàlla inna xibaad yi naka sama jaam ñi laysa laka dédd ci seen kaw sultaanun genn kàttan wala sultaanun benn sañ-sañ ومن أراد كبغ أن نجات مج من غرور الدنيا تورك أدنى فليأخذ نجاب المصالح مصلايا وليترك تنباي المفاسد يقو يقويا فلا تغرنكم بملين ور الحياة بمجي الدنيا جنة صوفة ولا يغرنكم تبملين ور بالله تيالا الغرور وركب والسلام sëñ bi nee na woon bakkan ak bànneex ak saytaane ak àdduna ñeenti noonu ñi ku ne am na ngànnaay loo xam ne moom nga koy xeexe daal di koy gañe mu daanu yow nga taxaw daa njëkk tudd bakkan sa bakkan bi lay digal rekk lu bon da safaanoog moom fexe ba sax ci aw yiw te yàlla tax suñu boroom ne wafxalul xayra na laxallakum tuflixoon sax leen ci lu baax kon da texe bànneexit te mooy sopp loo xam ne dalay lor mbaa mu lay ñor di jëme ci luy lor te moom day réerale ku ko topp mu réeral la mu ne ku ci bëgg a mucc da ngay yoonu yàlla ndax bànneex moom la mu yóbbee nit mooy wàcce ko yoonu yàlla kon nag boo sóoboo yoonu yàlla rek mucc ci lori bànneex suñu boroom ne fastaqim kama umirta dana yonante bi jubal xocc ni nga xam ne moom lañu la digale tegu ci yoon wa rek bañ koo wàcc lum mu tuuti tuuti ku bëgg mucc ci dawloog seytaane na taxaw temm ci jaamu yàlla doon dëgg-dëggi jaamub yàlla ndax suñu boroom nee na seytaane sama jaam ñi dëgg-dëgg day duma la may nga am ci ñoom wenn yoon ku bëgg mucc ci wari àdduna nag day fexe ba lépp lu ko amal njariñ ci àdduna te du ko lor ci àllaaxira mu jàpp lépp lu koy yàqal fii ci àdduna baa mu koy yóbbee lor ca àllaaxira mu daldi koy wacc ne moo tax suñu boroom ne na ngeen moytu dunduk àdduna gi wor leen na ngeen moytu seytaane wor leen wa qaala alcheikhu alxadimu ne haasihi lii jawharatun wurus la wa yaaquutatun te perub yaaquut la in boo xam ne taxañu na maanam lemu na ci biiram ulumul awwaliina xam-xami way jëkk ña wal aaxiriina ak mujj ña daldi ne muhammadu muhammad rasulullahi mi ndawli yàlla raisul atqiyaa yi kay kilifa way ragal ñi yàlla lahoo ñeel na ko bilaadun ay rew wa quran ak ay dëkk fi dakhil al bilad ci bir rew yi wala ho ñeel nako yit afhalun ay jëf fi dakhil al bilad ci bir rew yi wal qura ak dëkk yi wala ho ñeel nako yit it xóotul ab dund fiihaa ca ñoom wala ho ñeel nako yit ay ban batay xiyaalun njaboot amal bilaadu ndaal réew ya fal imaanu moo di imaan wal islaamu ak islaam wal ixsaanu ak ixsaan wa amal afxaalu ndaal jëf ya fal waajibaatu moo di wal mandoobaatu ak ya sopp wal mandoobaatu wa amal xóotu ndaal dund ba fal mubaaxaatu moo di daganal as saalixaatu ya way yiw almursalihatu yadi way yiw almursalihatu yadi way yiw almursalihatu yadi way yiw وغاني إلهي كل در بجاه من لو دهر قتيل محمد المختار لم يأت مثله وليس يجي مثل له نعم سيدي